monsieur Faye ñëw na quand même. d'accord dinaa ko woo léegi. maa ngi bëgg a fii nii. waaw. Ba na nga def. metti na. xam naa da ngaa sonn. loolu moo tax nag ma indil la verre bi nga xamante ni moo gën ci verre yi. bi nga xamante ni. soo ko defee sa bâtiment. du mos a tànk. te it day yaxanal énergie bi nga xamante ni moo jëm sa climatiseur verre baa ngi nii. voilà. moo la sonal. verre bii moom moo nekk sama bâtiment bi yëpp. tollu day lëndëm dafay tàng. te mhm. am nañ climatisation mais ça ne va pas ba tey doxul. muy noonu léegi lu ci pexe. dem Mbaye frère bi nekk HLM. nañ dem. établissement Mbaye frère soxlaa wutul génn réew mi di wuti matériel lépp nga fa HLM 1 rue 13 avenue Cheikh Amadou Bamba Dakar téléphone 33 864 75 15. asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu ñu ngi fii ci julli géej gi di nuyu mboolem ñi nga xam ne dañuy topp Tawfekh Production ak fu ñu mën nekk ci àdduna bi yaakaar naa ku dégg ni waxtaan wi déroulé ak kilifa yi nga xam ne yëpp jox nañ leen fi kàddu tàmbalee ci sëñ Cheikh Gueye imam ah, sëriñ Bassam Abdoul Khadr eh, ci ndigalul sëriñ Cheikh Mouhamadoul Mountakha yàlla na fi yàgg lool te wér waaye sëriñ eh, Fallou Mbacké imam ak euh, responsable politique yi nga xam ne ñoom ñëpp ñëwoon nañ fi ñu mel ne ay ñoom Abdoulaye Abdoulaye Diouf Sarr nga xam ne président de la république moo ko yabal ak mboolem membre yi nga xam ne ànd na ak ñoom te ñooy ay membre yoo xam ne ci gouvernement bi la ñu bokk ñooñu ñëpp boo ko xoolee ak Cheikh Makhtar Diouf wax yi fi wax ak mboolem commission bi nga xam ne ñoom ñoo aju ci yoonu géej gi da ngay gis ne liggéey bi ren am na amélioration bu baax a baax waaye ñuy sant yi taalibe yi daanaka responsable ak ñëpp da leen gis waaye li ci gën a am solo mooy sëñ Fallou euh, Mbacké euh, moom Cheikh Abdoul Khader euh, discours am dafa am solo parce que da ko indi ci wàllu lu jëm ci ak njub ak it wax ne jullit ñi bu fekkee ne dañuy julli te inna salaata tanha anil fahshaai wal munkar wala dikrullahi akbar mu wax ne bu fekkee ne nit ñi dañuy julli te al fahshaai wal munkar mënta jeex kon julli gi ñuy julli imma baaxul wala nañ ko war a defee defee ñu ko noonu wala daal am na lu xew mu wax yit ne bokk na ci li yàqal ci lu baree baree bari mooy ay xàq yoo xam ne moo dox diggam ak mbindeef yi dana tax lu mu a jot du ci jot ah, loo xam ne dafa demoon ba yaakaar ko war cee jot ci jotu ci mu ne loolu lépp ay xaq dana koy waral kon nañu baalante àq yàlla nañ suñu borom musa jax wax wa jaxal xulubana ala tawadudi bila tanazuin wala taxasudi wala taqasumin wala tadaburi wala tabaxudin wala tanafur xata nasira muslimina xaashiin wa muminina muxlisina saalihin ah, Serigne Fallou ah, loolu ay bayit yoo ne wax na ko Euh, ay bayit yoo xam ne sëriñ mag moo ko indi di wax euh, ne jullit ñi nañu bëggante nañu soppante nañu wóolante kon bisub sëriñ Touba bi it faaw mu nekk bis boo xam ne day am message sëriñ euh, Cheikh gay imam leeral na fi it yil ak réyal gi nga xam ne war nañ koo jox julli ndax sëriñ mag bi fi mu jullee wane na ne bakkanam julli moom moo ko gënal kon nag loolu ñun jullit ñi ak murid su fekkee ne julli dañ koo desal gannaaw fonkuñu ko wala euh, teguñu ko fi ñu ko war a teg kon day mel ne bu njee màggal yoonu géej gi day mel ne kon dese nañoo dégg wax ji euh, sëñ Touba nag mbooleem lu baax lu mu man di doon boo fa demee da ngay fekk mu jël jongeer ga dafa am benn euh, shaa'ir as-Sinqiiti yi ku wax wax Mouhamad Fadal ibnu Ahmad dafa ko wayoon ay way yoo xam ne ne ko dafa mel ne an-nahwu wal aruur ilmul arabi la doon wax ne ko arabi seen seen karam seen juut lépp yow sëñ Tuubaa da nga koo jël ah, te dafa mel ne ah, daraja yeen yoroon ak kawe kawe yaag yëpp dafa mel ne say loxo la mujjee te daan na ñoom arab loolu moo nekkoon seen mandre kon sëñ Tuubaa lu baax lu ne rek soo demee da ngay fekk ne moom ah, def na ci jëf joo xam ne dafay kawe njor kon nag ñun ñi nga xam ne it dañuy topp sëriñ bi war nañ ci am ay taxawaay yu amaam am solo xam ne liggéey yoonu géej gi Euh, liggéey la bu rëy rëy rëy boo xam ne ijan rujuun yi ilaa xaw mi saadatana wala tak fi naa yow ma jamil xalqi niiraana li taxoon mu sacrifié boppam dara waralu ko luur bu dellu see waa Sénégal ñëpp nekk jàmm suñ Tuubaa yàlla na ko suñ borom fayal la amruka ma talqa bi asrika mithlahu walaw tufta kulla al ardi ma anta tubsiru fatan xattu lam yasmah zamanun bi mislihi fa saddiq fa xawli saabitun laysa yunkaru loolu ay wax la yoo xam ne kak ko wax wax euh, adduna dëggal na ko Sëñ Tuubaa ko mel ne moom amul jamono mos a indi ko mel ne moom kon yàlla nañ ko yàlla fekkee tatal ko Cheikh Makhtar Diouf it ñu di ko ñaanal bu baax a baax a baax taxawaay liggéey géej gi ah, foo ko takk rek romb na ko di sant mboolem mbokk yi nga xam ne dañuy ànd ak Tawfekh Production wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu.